asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki juli ju tedd yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara tey ñaan yàlla di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla jéggal ñu suñuy gàttal ñu mbokk yi suñu xikma bi tey dafay wax ni mahma kaanat niyatuka saafiyatan fi ayi cheyin tafaaluhu tadakkar annaka lan tanjuwa min zunuuni nnaasi sayyi'a abadan mbokk suñu xikma bi xikma bu am solo la dafay wax ni sa yéene ak nu mu mën a toll ak nu mu mën a mel ci ak sell ci ak set nga sellal ko ba mu sell ci bépp jëf joo xamante ni bii rek yaa ngi koy jëf yaa ngi koy taxawe nee na na nga fàttaliku ni yow day mënuloo mucc mukk mënuloo mucc mukk ci njortu yi nga xamante ni bii nit ñi ñu ngi koy njortu ci lu ñaaw sa yéene nu mu mën a toll ci ak set ci ak sell ci bépp jëf joo xamanteni bi yaa ngi koy taxawe di ko def na nga fàttaliku ni yow mii mënuloo mucc mukk ci njortu nit ñi li ñuy njortu ci lu ñaaw mbokk yi xikma bu am solo la kon daal na nga def rek li nga bëgg def te war koo def te nit ñi nga bàyyi leen ak seen yi njort ndax nit ñi moom kenn mënu leen wax sax waxuma di leen teree njort wala ñuy xalaat njortu moom alquran ŋàññi na ko ndax yàlla wax na yéen ñi gëm yàlla watta leen njort lu bari ndax lenn ci njortu yi bàkkaar la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kadalika tere nañu njort kon daal jullit bi nga xamante ni bii moom mooy ki gën a rafet jaamu yàlla mooy jullit bi rafetal njortam jëmale ko ci ay mbokkam nit ki dafa war a rafet njort lu jafe la nag yombul de lu jafee jafe la nit ku set xol dëgg moom moo ko man te yal nañu ko yàlla defal ndax nit ñi moom na nga def rek ndax loo def lu ne ñoom seen njort léeg-léeg am na ku naan moom day yàlla taxu koo wax de waaw boppam rek dafa bëgg feeñ rek moom foo ko fekk daraja rek lay yootu lu ne mën nañ koo wax xëy na dërëm lay wër lu ne mais daal yow li ngay def def ko rek te yàlla tax na sa yéene sell nga def nit ñi nga bàyyi leen ak seen bàkkaari njort yal nañu yàlla musal nag ci njortu lu ñaaw ñu jëmale ko ci suñuy mbokk ndax képp koo xamante ni bii bëgg naa am mujj gu rafet na góor góorgóorlu bay rafetal njortam jëmale ko ci ay mbokkam yal nañu yàlla saxal yal nañu